gis na bàyyi ji li làmb ji ren doxul ñu gis ne làmb ji ren doxul combat yu mag yi taxawul mbër yu ndaw yi rek ñoo jot a bëri te ñenn sax ci mbër yu ndaw yi laay wax mais ñu gis ne saison bi tëj na dafa tëj rek combat yi commencé taxaw coronavirus bi yàq na lu bëri waaye dafa mel ni tamit nañ ko nawet jiyee dina neex ndax boo xoolee boobaak léegi am na ay làmb yu fi jot a taxaw ñu koy xool ci démb dégg naa Balla Gaye euh, kii kon Boy Niang Tapha taxaw na mhm. Balla Gaye Gris Bordeaux Ama Mbacké. Garga de euh, Mama Lamine ah Tyson 2 Franc. combat yu neex daal moo ngi taxaw fi mu toll nii combat yu neex a neex moo ngi taxaw mën nañu wax ne daal fi mu toll nii saison bi ñu ñëw dinañ ko ubbi en beauté dinañ am ay làmb yoo xamante ni te promoteur dafa mel ni ñëpp dugg seeguñu ñenn rek laa jot a gis doo ko waaw ñu jot a dugg si làmb yooyu noonu jot a taxaw bàyyi ji li noo koy jàngatee ñu njëkkee rek ci làmb ji nga xamante ni dégg nañ ne moo taxaw démb muy ci diggante booy Niang ak Tapha Tine ko ñu ne Boy Niang Tapha Tine Thialis Pape moo ko taxawal mhm. mu doon combat boo xamante ne Sénégal xaaruñu ko woon Ouzin vraiment pour pour ñu wax rek ñu wax dëgg ñu waxante dëgg waaw parce que boo xoolee Tapha Tine Lac de bu nekk dégg na ko fi ci ñoom ñaar moo ko dóoyoo mu daanu si Sénégal xaaruñu woon loolu ci làmb parce que li ñuy xaar ci làmb mooy Ouzin gis nga booy Niang dafa waroon a bëreeg Balla Gaye 2 ren booy Niang Boy Niang 2 dafa jot sëkk mu bëreeg Balla gay 2 ren combat yi ku ko tëgg lu dul grand contre yàq nga làmb mais ma dégg ma dégg ñu bàyyi ñu ne Boy Niang yegg seegul ama amul capacité yu ma mën a bëreeg moom dañuy wax rek Boy Niang mi bëreeg Lac de Guiers 2 mhm. mi daan Sa Thiès Boy ñaa yi fi bëreeg yeneen ndaanaan daan guy gi dugg géejawaay ah daan Garga Mbossé daan Sa Kajoor daan ñeneen ak ñeneen Boy ñaa champion la dafa war a bëreeg ki nga xamante ni mooy Balla Gaye 2 mais vraiment Ouzin dem ci booy Niang di tëgg combat moom Balla Gaye ñu waxante dëgg rek sama papa Gaston aw ma dara loo xamante ne dama ko koy sànni wala dara damay wax su ma xalaatu bopp Boy ñaa xam nga ne du mbër moo xamante ne nga koy fay 65 millions pour mu bëreeg Balla Gaye 2. man de dama koy faral di wax nee naa kii di Balla Gaye 2 kii di Modou Lo saa boo lekkee seen avance war nga ci am oto bu bees am ci kër goo dugalee say waajur. waaw parce que dafa nekk mbër yi nga xamante ni loo amul ci ñoom mënoo ko am ci ñeneen fi làmb toll. Hmm. xam nga loolu loolu du du loo xamante ni àdduna ñu ngi koy séentu. 65 millions nga fay Balla Gaye plus de cent jëm kaw mu bëreeg booy Niang tey Boy Niang bu jëloon Balla Gaye ci loolu damay xam ne amul staff. Mhm. mais heureusement ba mu amee ay kilifa yu ko encadré bëgg bëreeg Balla Gaye du tax nga jël Balla Gaye ci anam boo xamante ne boo bëree ñu daan la nga naan non. liñ ma fayoon baaxul. Mhm. dañ maa def lii dañ ma kii déedéet làmb du loolu. comprendre dafa mel ni euh, Ama Balde ak Modou différence boobu da ngay xam ni jaadu na Ama Baldé bu ñu ko fayee quatre-vingts millions pour mu jël Modou mu arrangé ko mu nangu ak li mu naroon jël tafaatin ñu ñëpp xam nañ ko dangay xam ni kon làmb dox na jéego parce que mbër boo jugee ci cinquante million wax dëgg combat bii di ñëw bu ñu la fayul soixante million war nañ la fay cinquante cinq mais nag wax dëgg mënoo di bëre cinquante million di daan ay ndaanaan di bëriwaat ak ndaanaan bu mel ni Balla Gaye nga xam ne mën a bëreem kenn nataabale wu ko ci làmb mën xeexam kenn nataabale wu ko ci làmb mën bisam kenn taabalewu ko ci làmb nga koy jox Boy Niang ci loolu pour man grand contre petit bi combinaison bi lan la woon. Mhm. mooy Balla Gaye 2 Boy Niang. Lac de Guiers 2 Gris Bordeaux. làmb ju neex la. Tapha Tine Reug Garga Mbossé Sa Thiès <laughs> yaa ngi dégg. yeggali non Garga Mbossé Sa Thiès. Mhm. guy gi nga jox ko mu bëre guy gi soit guy gi mu jël guy gi mu jël euh, nu mu tuddee comment dire guy gi mu jël. mën na jël pour pourquoi pas guy gi jël Eumeu Sène wala guy gi mu jël guy gi mu jël si Junior loolu làmb ju neex la Bombardier ñu xool kuñ ko dugalal Bombardier mun na may rëg-rëg chance parce que rëg-rëg bëgg na ko am na yeneen xale yoo xam moom sax bañul woon rëg-rëg nag ko te am na yeneen xale yoo xamante ne dañoo waroon jug ci làmb làmb loolu moo koy doxal mais est que nekkul est-ce que tamit nekkul mbëri li ñuy wax ne promoteur dafa am ndax da ci ciy gis mbër moo xamante ne am promoteur am danaan ko diw laa bëgg a bëri ko ko. promoteur bi dem doxloo est ce nekku tamit loolu moo yàq làmb. ah promoteur bi ko def di nga di sànni sa xaalis ci àll bi de Ousseyn man mii tëggal ma naa ne la Garga Mbossé laa soxla wala Sa Thiès nga tëggal ma. fay ma ci def sama alal 50 millions nga xool ba xam ñaari nit ñaari nit. kaw est ce que li ma yebal loolu. waaw du indi ñaari nit. su ma bàkkoo du neex su ma bëree du neex lu ma def ci làmb ji du neex su ma ñëwee Sa Thiès ne ma këpp ma nelaw wala Garga Mbossé ne ma këpp ma nelaw làmb da xool ñi nga xamante ne ay combat ay adversaire lañ làmb ji dañoo soxla dafa am lu ñu soxla ci làmb mooy Ousseyn dañoo bëgg làmb ji fi mu nekkoon mu yeggaat fu tol tol noonu wala fu ko raw mais dañu sonn ci ay revanche Gris Bordeaux Balla Gaye sonn ci ay kii pourquoi pas Tapha Tine mi mënoon nañ ko jox la dëgg de mu may ko Tapha Tine Balla waaw Tapha Tine mii mënoon nañ ko jox Gris Bordeaux Tapha Tine musul bëre Gris Bordeaux bëri naa Lac de Guiers 2 Lac daan ko Lac de Guiers 2 musul bëre Gris yooyu nga jël Balla Gaye ak Lac de Guiers 2 Balla nga xam ne bi ñu bëree léegi bu defee trois ans ci la yem nga tëgg revanche boobu xëy na nag Père Gaston am na ay euh, sponsor yu ko accompagner ba ne ko ñii lañ bëgg seen combat ñu tëgg ko xëy na loolu tamit mën naa ne mais xam naa ne daal làmb yu jot a taxaw moom làmb yu neex la léegi ñu njëkkee ñu njëkkee ci Tapha tafaatin booy ñan làmb jooju soo ci doon wax maanaam lan nga ci wax parce que bu ñu xoolee Tafatine moo xaw a sut Tafatine xaw a ëpp te te ñëpp tamit jàpp nañu xeex bi moo ciy dominé kii di Boy Niang ban chance la am ci làmb jooju parce que boo xoolee moom tamit pour mu pénétrer Tafatine làmb ju yomb ci booy Niang de. làmb ju garaaw ngay wax. booy Niang Tafatine. buñ toll nii ñiy joxe ci làmb favori buñ doon jox favori dañ koy jox tafaatin parce que taille bi mu yor dayo bi mu yor. adversaire yi mu bëreel parce que Tapha Tine ak Boy Niang mën naa ni Zoss boole na leen te daan na Zoss te Boy Niang daanul Zoss Zoss daa daan Boy Niang. Ama Balde. Ama Balde non du du Ama Balde parce que ñoom ñaar du ñu. Tapha Tine daan na Tapha Tine te Tapha am na loo xamante ni dal na ko biir Pikine te daf ko metti te erreur boobu mu defoon ci xale da koy bëgg a rectifier ci kaw booy Niang léegi erreur boobu nag booy Niang. nan lay def ba génn ci combat mais Ouzin danaa la wax leen. Mhm. Boy Niang ëpp ko doole loolu taxul nga daan ko. buy bëreeg yow day mel ni ku la ragal te ragalu la dalay bàyyi làmb ji bàyyi la ak moom teg tànk di dam yeeg yow di bëreeg yow ci xel avant mu lay jàpp te booy Niang benn song bu mu la song te jàppoo ko bu la songee dalay wan ginnaaw. te est-ce xam nga benn affaire baa jii ni hmm. kii di Tapha dafa duggoon Pikine kii di Ama Baldé. ñi ànd ak Tapha Tine kenn xalaatu woon ba ci Tapha Tine xalaatu woon Ama Baldé dina ko daan mu daan ko mu am lu bëri lu mu rela lu mu lu mu lu mu lu mu téye ci carrière ba bi mu bëre ak Zos sax dañ koo yeb ba mu téye boppam mu ñëw ci Zos daan ñëwaat Yékini Junior xaw a rectifier loolu mu delloosi ko ci làmb mu ñëwaat jël ki nga xamante ni mooy Boy Niang te Boy Niang kenn ko xam ne ne bëreem du du assuré du ne leen lii laay ñëw bëree comme ni nga ko waxee day mel ni ku la ragal est-ce mu jël ko. su ko ñàkkee est-ce que du am lu bay lu muy lu muy wàññi ci kay moom tamit. kan la booy Niang Tapha Tine Tapha fi mu toll nii waratul def erreur ci làmb parce que ay adversaire am dañ ko romb. Gris Bordeaux dem na. Balla Gaye 2 dem na. Lac de Guiers 2 dem na. Eumeu Sène dem na ñooñu ñëpp. nga xamante ne moom tey bu ñu doon tëgg combat luur yi bu ñu nee ñaari luur waruñu ko cee boole Tapha kenn du ko gis di laajte ana mbër bi. Mhm. Tapha mën na bëre. Tapha Tine mën na xeex. am na gabarit bi mais lan mooy problème am Tapha lan mooy problème am ci làmb. boo ko xamee wax moo ko. jël na xale boo xamante ni tey fi mu toll nii bawol bawol yëpp wala ku dul bawol bawol sax ndax booy ñaa tamit ñoom ñaar ay bawol bawol lañ parce que booy ñaa bawol bawol yi dañ koy ñaanal. Mhm. mais fi mu toll nii ñoom ñaar doon nañu ay mbër yoo xamante ni ku ci sàgganee sa combat lu doy ni bën bën puso da ngay ñàkk sa làmb te ku ci ñàkk sa làmb am na fu baree baree bari foo xamante ni yaakaaroon nga ni di nga ko fa di nga fa yegg te doo fa yegg. booy Niang tey fi mu toll nii. léegi ñu ñëw ci Boy Niang Boy Niang mi nga xamante ne dafa duggoon cours des grands. Mm. ñu jox la Lac de mais gars yi ne dafa échec. Mm. parce que dañ ko joxoon examen mais jotul jàll. Mm. ñu mayaat ko chance dugalaat ko ci Tapha Tine moom lan mooy lan mooy lan mooy engagement ci làmb ji ak lan la war a bëre pour mën cee génn pour mën a dugg cours des grands parce que boo xoolee moom mooy Boy Niang fi mu dëkk muy Pikine dafa dëkk ay nawle muy Ama Baldé. Ama Baldé euh, remplir na contrat am dugg na cours des grands war a dajeeg Modou Lo. moom mu war lan mooy chance am ci làmb ji pour mun ko mu mun koo jàllale moom boo Niang. bul wax essai parce que Boy Niang fi mu toll nii yegg na Tapha yegg na mbër mu mag la ku bëreeg Bombardier mi nga xamante ne doon na deux fois roi des arènes nga nga nga bëreek moom yóbbu ko à l'usure gaañ ko dóor ko dóor yu métti génn ak ndam keroog malgré daanu ko wëlmi gang yee dafa génn ak ndam keroog ndam boo xamante ni Tapha dafa bett ñu bari Tapha Tine mi bëreeg Elton. jàpp ko dóor ko dóor ko dóor ko ba mu tëddal boppam daanu ko wël daanu ko wël mi gang waaye tamit noonu la ko defee kon moo lay wan ni tafaatin mi mën naa bëre ku nekk ci làmb tafaatin mun naa bëre ku nekk baal ma de xaw ma ku may woo lii gaa jënd xaar tafaatin sëñ basir borom mbég beeg taar bi moo may woo jël ko sama DG sama DG sëñ Bas sëñ Bas déedéet yaa ngi nii en direct wasaare ñu lay dégg wasaare kay ñu ngi lay dégg de. am lu ma la waa kon nag may woowaat ci kanam. ma woowaat la ci kanam. waaw. ñu jugee ci. Tafatine am jaala xar bi. ñu jugee ci tafaatin ah, ak Boy Niang ñoo dal ci Gris Bordeaux ak euh, Balla Gaye diggante Balla ak Gris Bordeaux bàyyi ji lii su ma doon wax tey noo gisee ndax combat boobu mën naa ne revanche la ndax ñoom ñaar. jotoon nañu bëri kii di ki nga xamante ni mooy Balla Gaye 2 am euh, ndam ci kaw Gris Bordeaux par décision arbitrale mm. bu ñu ñëwaatee Gaston suñu papa Gaston ànd ñu revanche làmb jooju naka nga koy gisee. làmb ju neex la ndax Gris Bordeaux lu mu am ci àdduna ba rek Balla Gaye 2 moo ko gënal fi mu toll nii. Mm-hmm. parce que dafa dafa am ci lu mu nekkoon ñu jox ko Balla gay Balla gay jóge ci deux défaites keroog ñëw. am ci gàddaay sax nag waaw jóge ci deux défaites jóge gàddaay parce que Balla Gaye Bombardier daf ko daan nangu roi des arènes bi mu bëreeg Eumeu seen Eumeu seen daan ko mu jëm ci Gris Bordeaux bi mu ñëwee ci Gris Bordeaux keroog ak Gris Bordeaux moom ci situation yi mu jógee Modou Lo daan ko moom yi mu toog lu yàgg bëriwul mu ñëwaat ci làmb ñoom ñaar ku ci nekk làmb da leen a ñeemantal bëgguñu woon kenn daanu ci làmb parce que ku ci daanu rek mun na nekk sa sa génn ci làmb mhm. moo waral Gris Bordeaux keroog yéenewuñ ko woon mu daanu mhm. bala Gaye 2 yéenewuñ ko mu daanu léegi moo waral askan wi yëpp àdduna bi yëpp ni bokkoon ñaan mooy yàlla bu fi jël am. Sénégal dafa mën a ñeewantal waaw ndam am na malgré Balla Gaye la moo fa génn keroog ak ndam. Mhm. waaye du daan ndam loo xamante ne dafa daan Gris Bordeaux wëlming gang parce que mhm. làmb nag képp kuy wax rek. ak loo mën a amee ndam ndam moom neex na noo ko mën a amee ndam la. Mhm. mais mais daan mbër tëdd ci dënnam dafa gën a leer. Gris Bordeaux nag wan ni Balla Gaye li nga li fi nga jaaroon ak man buñ fa jaaraatee ma daan la Balla Gaye de gëm ni moom. fi ma jaaroon ak yow duma fa jaaraat ak yow dinaa bëre ak yow bëre bu gën a gaaw bi ma bëre ak yow dinaa xeex ak yow xeex bu gënoon gaaw xeex bi ma xeex ak yow dinaa la daan jël bu gën a gaaw bu la mbër musta daan Gris Bordeaux na dafa am erreur bu mu gis ci Balla Gaye te erreur boobu bëgg na ko weeje ba Sénégal gépp xam ni Balla gay 2 mi am na fay ci côté bi mais Balla Gaye loo mën a xam ne ndaanaan la Gris loo mën a xam ndaanaanu bërekat la Gris mën na xeex Gris mën na bëre Gris mën na song Gris boo ko songee mën naa jëli Balla gay 2 mën na jëli mën na laa xaar Balla mën na xeex ku la waxoon Balla Gaye 2 Gris Bordeaux bu buñ jàkkaarloo Balla Gaye dina yëkkati xeex ak Gris Bordeaux doo ko gëm déedéet xoolal keroog ñaata coup la Gris Bordeaux recevoir ak moom waaw waaw Balla Gaye dóor ko ay coups yu bëree bëree bëri sama garaa la sax du ma ko saali xeer am na site bu fa ñëw muy patal benn bët bi daan kii ban site la affaire yooyu ba ñu ci bëri ku caa di ko kaajoo ak yóbbeel loolu da ngay xam ne làmb moo laaj loolu te làmb ji bu taxawaatee nii nii nii taxaw na malgré mais bu ñu amee date ba ñu yegg ca bis ba Ousseyn di nga gis làmb ju neex ndax dër bi fas Pikine la déggal euh, dër bi Fass Géejawaay la Balla Gaye dafa am lu mu amee waa Fass te Gris Bordeaux daf ne rêve mooy képp ku daan Moustapha Gueye moom dina la daan Balla gay 2 daa daan Moustapha Gueye dugg Fass daan Mbaye Diouf daan ay daan daan yeneen mbër yoo xamante ne ñu ngi Fass ku lim juum léegi nag Gris Bordeaux erreur boobu la bëgg a daan bi mu daan Moustapha Gueye mu jëlal ko revanche ba pare leeral diggantam ak Balla Gueye lu weesu xam naa ne loo mën a xam mooy làmb joo xamante ni làmb ju neex la Ousseyn làmb la boo xamante ni askan wi soxla nañ ko. est-ce que njort nga ne li ci amoon dina ci amaat. lu ko gën a pire te komba bi dañoo yaakaar day gën a kii day gën a yàgg ñoom ñaar. loolu nga yaakaar. billaahi lu leer laa lay wax day gën a yàgg. kon sénégalais seen xol dina sedd. combat boobu day la dañ koy koos. Gris day koos Balla day koos. Gris pour moom moom rek moo gën a bëgg koos te Balla dafa bëgg loolu Balla bëgg na làmb ju gaaw mais bëgg na di ko koos di xeex di bëree di songante di daw génn mën naa ne mën naa ne ñu koy seetaan tam nañ jënd butéelu ni ko siroté tuuti tuuti boisson day gaaw ataaya la ñuy teg war ngaa si <laughs> ju neex la xam naa ne lamb ju neex la kon gars yi dañ ko xaar Papa Gaston loolu ñu andi loolu hmm. ñu ñëw ci combat bi nga xamante ni taxaw na depuis daaw muy combat bi nga xamante ni diggante Modou Lo ak Ama Baldé yaakaar nañ ne moment bi sax ah dinañ ko bëyee ba mu jàll ku nekk xool ci leneen ñu ne Modou Lo mooy côté nekk waa Désane wala waa Désane bi ñibbiwaat ne Pikine ba léegi combat bi moo ngi nekk ci ay kii est-ce que am nga yaakaar dinañ ko bëyee ren est-ce que ak combat bu taxawee enjeu bi mu am Ama Baldé ni mu bëggee kombaa bi waa Parcelles tamit kenn xam ne na ñoom lu Modou Lo lu Modou Lo nekk lu nekk ñoom ñoo ngi ca. Hmm. làmb ji naka nga ko gisee ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé. mooy li làmb soxla woon ñu naan làmb fay na. suñu papa Luc Nicolaï dafa ñëw xool combat bi askan bi gën a bëgg. combat biñ ne mënul taxaw mu taxawal ko muy diggante mooduloo ak Ama Baldé waaye xam nga moom cat moom du wees cat euh, te sama maam dafa ma daan wax naan cat moom làmmiñ bu rayul rek semmal cat moom mun a wees suñu papa Luc Nicolaï joxe avance yàggul même pas vingt quatre heures nga dégg ni waa jàppaat nañ ko mu ngi ci loxo yoon tey na wax dëgg ñun xamuñu ci yoon dara. waaye jullit bu nekk sañ naa ñaanal moroomu jullitam ñuy ñaan président de la république bu fekkee mun na cee dugal loxoom mu dugal ci loxoom dimbali ñu ñu bàyyil ñu Luc Nicolaï parce que suñu papa te koo xamante ne la làmb am na ci moom yaakaar te et day jàppale jeunesse su làmb développement la billaay wallaay Ousseyn day jàppale ñu baree bari ci làmb suñu papa Luc Nicolaï mbër yu ci bëri bari bari tey bu ñu demee bay bay doon ay millionnaire bay mën a tabax ay kër yor oto bu rafet bu ñu rombee nga naa ñi lépp ci loxoom la jaar kon kooku tey euh, bu bu bu yoon dalee ci kawam li ñu mën mooy ñaan yàgg na nag wax dëgg ñaan yàgg na combat boobu bi mu taxawee takk maak sëñ Bas am na fu ñu àndoon. ci ci ci ci ci kenn koo xamante ni bokk na ci ñiy ñaanal làmb muy sëñ sëñ sëñ Mor. benn Mara muy mu dëkk côté Kër Ma côté Kër Massar côté Malika. ñu dem fa mu wow ma ñu ñëw mu ñu toog di waxtaan mu ne combat boobu du am ren. ma ne waxee ko noonu wax ko nii combat boobu du am ren lu tax loolu avance bu mbëri jot dee mu ne ma du am ren. combat bi buy am xanaa deux mille vingt et mais ren moom Ama Baldé ak ak ak ak ak Modou du ñu sëgg. mu jékki-jékki waxaat ma ci yeneen combat bokk na ci ci ci euh, nu mu tuddati Franc ak Bébé Saloum. mu expliqué ma ci combat ba bokk na ci ñi ma expliqué waat ci beneen combat muy. Euh, maa ngi dégg mu wax naan du mat une minute. Papa Sow ak euh, ak te li ma ci franc bébé Saloum boobu làmb ji ju ñàkk fayda la làmb ji du am xeex benn song lay doon te combat bi du mat une minute franc da koy daan nga xam ne am na ci ñoo xamante ne xëy na yàlla suñu borom may na leen. da nangu ni loolu suñu borom moo leen ko may te ba léegi boo demee wasaare làmb gis sañ Mor. lam foo waxoon yëpp ba léegi ma nga fa nga xamante ni làmb moo demee noonu te it eh foofu yow te dangay xam ne rek làmb moom moo toll foofu làmb moo toll foo xam ne booy boo leen daa sax si xol lappul booy boo lappul dañuy ñëw grillé la fi yàqal la te làmb dafa doon loo xamante ni tey dañ ci war a jàpp mhm. surtout ñun ñi nga xamante ne ñoo ŋànk làmb ñu mànkoo bu ñu jàpp xam nga ne ñun lépp lu baax lu ne ñoo ko baaxa waaye lépp lu yàq lu ne ci ñun lay jóge dafa leer dafa leer léegi nag ñun ñëpp bu ñu mànkoo Ouzin jàppale làmb képp ku ñu laal ci làmb ku ñu xuri ñu xam ne làmb lañu Père Max mbargan day wax wax bu am solo ku xuri nit ci làmb. dégg nga waajee toog nee na bàyyi yàq. <laughs> yaa ngi dégg képp koo xuri ci làmb. Mm. Ouzin dafa war a doon loo xamante ne yow da ngay reporter làmb. te ci làmb yow bu làmb amul Ouzin doo fayee ko wasaare duñ la fay. léegi li nga war a mën a def mooy képp ku xuri benn mbër. moo xam ne ko mu nekk mbër mu gën a ndaw ci koñ ba mu mel ni yow lañ laal parce que ñooñu ñoo tax ngay fayee ko. dëgg la yaa ngi comprendre mais mbër boo ko respecté wul joxoo ko munoo mu laay mbër boo ko boo ko respecté wul joxoo ko dara li nga bëgg doo doo ko mën a am ci moom ku nekk day respecté seen biir reporter bi respecté moroomu reporter am mbër mi respecte reporter bi reporter bi respecté mbër mi mbër mi respecté promoteur bi ba que ni lépp lu ñaaw lu mbër di wax euh, promoteur bul ko bul ko génne lépp lu ñaaw lu promoteur di wax mbër bul ko génnee la Sénégal benn bopp la te Ouzin gis nga nit. lépp lu ñu nekk yàgg-yàgg dañ fiy jóge te tey mënumaa wax ci Ouzin wax ju ñaaw bu ëllëgee mu faatu ñu ne ma kaay seede ma naan ku baax la woon ku bëri jàmm buñ nangu buñ nangu ci mel ni suñu waa jooju nga xam ne bëggu maa tudd turam xam nga tey kooku bu def ñaaw na waaw léegi loolu bu ma wax waaye yàlla yàlla def ko entre parenthèse dinañ ci wax de koy bàyyi day wax mais xam nga ñooñu ñooñu ñu mel noonu ci réew dafa jar nga wax leen ba àdduna bépp xam ni ñii tey bokkuñu ci ñuy wax ak buñ bul mujjee puso bi nangu muy réer ci sa loxo. looloo am c'est ça wax ju am. léegi ñu ñëw ci Ama Baldé Modou avantage u Ama ci làmb ji avantage Modou ci làmb ji parce que kenn ku ne xam ne làmb jooju moom lu waaye gàtt dégg-dégg war na mën a xam ne làmb ju nekkul làmb ju yomb. dër bi la de Pikine ak Parcelles te yàgg nañoo laale Modou Lo daa dugg Pikine bëreeg Ama euh, bëreeg euh, Eumeu Sène aller retour. bu njëkk bi mu bëreloo ko ba mu sonn mu daan deuxième bi mu dóor ko mu nelaw ci stade bi. Ah, wax. dóor mu nelaw meen mu dóor ko bu nelaw ci stade ba. ci làmb keroog képp ku ñëwoon stade Demba Diop. ànd ak Eumeu Sène wala nga ànd ak Modou Lo amoo kontaanoo. amoo lu neex. parce que man gis naa ñoo xamante ne Ouzin keroog Modou Lo lañ faral. mais bi Modou Lo dóoree Eumeu Sène mu daanu dañoo am lu leen bett parce que dañoo bëgg Eumeu Sène Eumeu Sène képp ku bëgg làmb da nga koy bëgg parce que da ngay xam ni kii bu duggee mu neex bu bàkkoo mu neex su bëree mu neex léegi muy bëree Modou Lo làmb moo leen boole ñoom ñaar dañoo bëggante làmb moo leen boole mais keroog képp ku nekkoon ci làmb ja séntu woon ndam loolu ci kaw Modou mu bëreeg moom daan ko bi mu bëreeg Eumeu Sène dóor ko mu daanu Ama Baldé ne ko li nga jëlee Pikine xam nga nag ndombal tànk làmb musul laal suuf. jéey mhm. bi muy jël roi des arènes bi ci Tyson Eumeu seen moo àndoon ak Tyson. ñu dem stade amitié Bombardier dóor ko mu daanu mu nangu roi des arènes. yaa ngi lu yàgg jamono di dox. boobu lu boobu mu la fekk nga toll ndax xam nañ ne xale nga. waaw boobu naka la la fekk nga toll. boobu xale laa mais baa ngi doon seetaan làmb ndax bu baax boobu defetu Tyson su ma juumul yaakaar naa boobu mooy première defetu Tyson ci làmb. Mhm. mooy bi ko Bombardier dóoree mu daanu. Mhm. Bombardier yéen ñii sax ko jotu ko laal laalu koog yooyu yëpp xam na loolu ci làmb la bokk. Uh-huh. Bombardier dóor Tyson mu daanu mu jël roi bi. dem ak moom dem ak moom dem ak moom ba Yékini jëlaat ko ci Bombardier bu ko Yékini jëlee yaa ngi laajte de. ba du yàq émission bi. xar nga bëgg waaw. léegi da ngaa jug léegi dagg émission bi dem jaay waa jaay nga sedd ma. <laughs> waaw jaay naa moom sant yàlla mais Ousseyn ma ñëwaat ci fi ma tolloon. muy euh, Yaxya Diop Yékini jër roi de arènes bi làmb di dem xam nga lamb li lay wan ni ndombal tànk roi des arènes mosul laal suuf mbër mu ko tekki rek mbër da koy takkaat. lamb di dem di dem di dem bañ dajale Bombardier ak Eumeu Sène mu doon revanche revanche boo xamante ni Eumeu Sène moo indi woon Tyson Bombardier dóor ko mu daanu nangu roi bi Eumeu ñëw pour jël loolu Eumeu ñëw daan ko fayul Tyson ba pare récupérer roi des arènes bi ci moom comprendre léegi ñuy dem ba Modou Lo mi nga xamante ne dafa sonal waa Pikine moom mi daanoon euh, Eumeu Sène bëriwaat ak Eumeu Sène Eumeu teg roi des arènes Modou Lo daan ko récupérer te fokkati ko ci sama loxo grand dama ko bëgg a récupérer waat indiwaat ko biir Pikine Eumeu Sène Ama Baldé rêve am yëpp mooy ñaari yoon lay bëreeg Modou Lo mhm. mooy li ci njëkk day bëreek moom revance ndax Modou Lo da koo daan mbapat daan ko jël boo xamante ne képp ku nekkoon ci làmb ja weddiwul ne Ama Baldé Modou Lo daan na ko jël bu amul benn werante ba buñ gisee sax waa Pikine di wax bi mu koy daan xale la Ama Baldé wane ne ni boobu nekkagul mbër mhm. boobu daa daa jugg ci làmb rek dégg làmb am na fee rek mu dem ñu boole ko Modou mu bëreeg moom Modou daan ko boobu Modou Lo mu ngi ci biir làmb Ama gëm ni moom mbër mi mat na sëkk te bu ma joxee Modou Lo ma daan léegi nag Ama Baldé loolu moo lay may ni may fi mu toll nii rêve bi yëpp mooy daan Modou te Modou fi mu toll nii couronne bi da koo bëgg a téye ba doyal. te ñoo yomb ah làmb la làmb moom fi mu toll nii amul kenn koo xamante ni gëm naa ne di nga roi des arènes bi boo ko jëlee di nga ci bëri ñetti combat daan man gëw moo parce que ñi nekk ci kaw ñëpp a tolloo doole. amul ku ci mën a bëre ñett combat yoo xamante ni war ngaa mën a daan say naataangoo boo bëree kii teggi woo bëree Modou Lo bu daane daanee Ama Balde bu bëree waatee beneen combat keneen ku mu am mën a Ama Balde bu daanee Modou bu jëlee roi des arènes bi keneen ku mu bëreel mën na cee génn lamb ji mooy demee noonu te roi des arènes moom fi mu toll nii affaire. Euh, nu lu ñuy paasante lay nekk benn nen la ci mbooloo rek. dañ eh, ko mayonnaise waaw dañ koy mayonnaise rek toj na kenn du ko omelette kenn du ko baxal. dañ koy mayonnaise rek ku ne capp sa morom. jël jàpp sa baaraam màcc dem sa yoon fi mu toll nii loolooy loolooy combinaison làmb ji aussin lépp mënuñu ko waxtaanee ndax boo xoolee am na yeneen làmb yu ndaw yoo xamante taxaw na fi ci diggante Garga 2 ak euh, Kee. Maama Lamine diggante Franc Tyson de mm. yooyu yëpp moo ngi fi mais lépp xaju fi dañ koy tënk ak ji gisee loolu lépp am na fi. lan nga mës def la nga xamante ni nii tey neex na la loo xamante ni nii def nga ko sant ci sa bopp kontaan ci wàllum liggéey bi lan la ak projet nga am biir lan la bàyyi ci si ñi lay seetaan ak ñi nga xamante ne dañ lay bëggee projet yi lan la fi nga bëgg a yóbbu wasaare làmb non fi ñu ko bëgg yóbbu parce que ah, wasaare wasaare yaakaar naa wolof def na mbooloo mooy doole Ousseyn man boo ma joxoon caméra bi jox ma tripier bi jox ma micro yëpp jox ma machine na ma demal su ma demee filmer monter dugal su ma dugalee Sénégal gépp dañ ci man ndax mënuma ma ko mhm. damay ñëw toog ñu ne ma toogal waxeel nii defal nii duggeel nii te ki lay wax loolu duñ ko gis mm-hmm. ñoom jiili rek la ñuy gis kay filmer bu filmer ba pare day dem monter man musuma dem wasaare ñu ñu def ñu def ma def émission ba pare dem assister ñu may monteel soit ma naan kàggu wala bas wala aadama naan la defal li dugalal li musul am maak ñoom ñoo ciy bokk yam dama damay def sama video comme ni may def jox leen sama ITV dem sama yoon ñoom ñoo koy monté te saa yu ñu ko monté nga dégg ñu ne image wasaare bi set na son bi leer na. waaw nuyu yaay Ibou Ndaw waaw yaay Ibou Ndaw maa ngi koy nuyu. baax a baax léegi dañuy dégg ñu ne image yi set na liggéey bi rafet na lan la muy wane ni ni wasaare fi toll nii ay mbooloo lañ yu bëgg a liggéey. Hmm. Ousseyn man su ma sañoon barke Seydina Mohamed wasaare nekk numéro un te gëm naa ni lancé bii ñu nekk incha allah bu ñu suñu borom kàttanalee. dooleel ñi fi ñu bëgg a yóbbu wasaare dinañ ko yóbbu fu kawe suñu njort ndax am nañ gëm-gëm bi am nañ ñu nangoo liggéey am nañ ñoo xamante ne ñu ngi ci suñu ginnaaw te pare nañ pour jàppale ñu xam nga ni ku jël lu mel ni wasaare investir ko ci réew mi ba pare nekk bitim réew wóolu ñi nga xamante ne da nga ko leen ko jox ñi ko jiite ñëpp amul kenn ku ci am 30 ans ñëpp ay xale yu ndaw lañ. dañoo nangoo liggéey. ay xale yu ndaw moom la olof Ndiaye di wax naan fecc moom bu la taxee jéggi dex. boo yeggee xaar ku la tàcc yeggal rek tàmbali. te wasaare moom dafa ñëw nekk loolu nag moo am léegi nag fi mu toll nii ñoom ñëpp ay xale lañ. Mm. soo ma fekkee seen biir damay ruubee di grillé billaahi su ma ñëwee ci bas grillé ko dem ci euh, kàgg grillé ko dem ci Ousin grillé ko grillé ñëpp gars yi ku nekk nga grillé leen xam nga man yooyu dafay leex ay aadama Fatima nga leen sonal Fatima Rama gars yi dama leen sonal comprendre aadama mos na ñoo ànd tournage man moom ñu dem lamb ja di waaja xeex man ak moom te ñoo ànd sérieux te xoolal li li waral loolu yëpp mooy aadama dafa bëgg mu rafet man ma bëgg mu rafet te ku ci nekk bëgg na mu rafet rafet boobu ñàkk déggoo googu moo waral ñu coowoo man ak moom te bi ñuy ñibbi ñoo ànd bi mu commencé filmer ma dem jëndal ko boisson ñëw jox ko di ko neexal parce que bëgg naa mu kontaan gën am envie liggéey nga xamante ne bi ma ñëwee wax ko bas bas daa ree parce que laa ah loolu la la des fois ngeen bu la laale affaire moo lay wan daal ñu ngi sant képp koo xamante ni moo xam ngay bëggee wasaare làmb moo xam bëggee woo wasaare moo xam nga koy seetaan ak nga ñàkk koo seetaan ñu ngi lay ñaanal jàmm foo mënti nekk euh, te di ko sàkk ci ñoom tamit ñu ñaanal ñu ay xale lañ xamuñu dara ñu defee erreur Ouzin ñu xam ni nit mooy juum ay xale lañ xamuñu dara dañuy jàng rek jéemuñu teg suñu bët ci kenn wala ñuy concurrence ak kenn dañoo ñëw rek ngir liggéey liggéey boo xamante ni macha allah liggéey bu mucc ayib lay doon képp ku ko gis kontaan. Ouzin dafa am koo xamante ni mënu maa wax tey ba ba jeexal te tudd ma ko mhm. muy Modou Mbaye Modou mbay doomu Bécaye mbay mosuma koo xam yoru ma numéro téléphone am duñ déggante man ak moom mais dafa am benn jour mu def geste boo xamante ne geste bu garaaw la ci man mhm. geste boobu dama cee kontaan muy duggante Alioune Seye 2 ak ñaq jariñu arène nationale mhm. Père Khadim Samb moo ko tëggoon ne sit internet buy dugg day am accréditation ku amul accréditation doo dugg ñun jour boobu wasaare bi ñuy dem amuñu accréditation ñu dem man ak Bas ñoo àndoon ak aadama bi ñu demee Bas mu ngi dugg ci biir di ko lijjanti. Euh, waa ji lu mu tuddati. Mm-hmm. bi mu ñëwee dañu ñëw ñu taxaw Bas dugg ci biir di ko lijjanti ndeysaan Modou Mbaye ñëw fekk ma ma taxaw man la woon ak beneen waay càndum bu nekk Géejawaay info. Mm-hmm. ak ñett gaay yoo xamante ne xaw ma ci yenn site lañ nekk ñun ñu fa nekkoon daal Ousin boo bëggee dégg ci xayma mat nañ dix personnes. Modou mbay bi mu ñëwee dafa war a def direct mais dafa ñëw laaj ñu lan la ñu ne ko non dañu téye parce que amuñ man la laaj ma ne ko non dañu téye parce que amuñu accréditation mu ne non Père Khadim Samb ci presse la bokk warul téye benn presse taxaw ci taxaw ci ñun te parce que wane na ni presse bi ñun ñëpp benn lañu mu ñëw taxaw ci ñun Abdoulaye Ndiaye ñëw bi Abdoulaye Ndiaye ñëwee mu ne Abdoulaye Ndiaye lan moo tax ñuy dugg Abdoulaye Ndiaye ne ko non père Khadim sax mu ne ko non Abdoulaat ñii dañoo war a dugg parce que ñun dañoo war a liggéey père mënul nekk ci presse ba pare di kii waaw ne ko ñun nag dañoo war a dugg mu ne ko yow moo Modou mbay kenn téewu la ñii lañ téye mu ne ko non non ñun ñëpp ñoo ànd tama dama war a def direct affaire yooyu jour boobu dañuy dugg mu dugg nga xam ne lii ku rafet xol moo ko mën ku baax moo ko mën ku yéene nit moo ko mën parce que tey man ci suma xel bu gàtt bu doon mën a dama naan non man dugg naa wasaare dugg na sit bu dugg sama yoon newu ci mhm. ndeke àdduna du doxee noonu ndeke àdduna képp koo gis mu nekk ci dara rek da koy jàppale ñu ñu koy ñaanal bu baax yàlla suñu borom may ko gudd fan ak wér ndax wax sa mbaax waaye du wàññi sa mbaax dara foo dégg jàppal ma jàpp am na ñu ci jàpp merci may gërëm ñëpp nag ñoo xamante ne jàpp nañ ci ñëpp sama yaay sama papa samay mag sumay sumay grande ñëpp ñoo xamante ni ñu ngi ciy jàpp rek maa leen di jëfal ñi may conseil ñi nga xam ne dañ may woo jili teggil tànk tegal nii jili defeel nii waxeel ni ñoom ñëpp bëgg mu rafet maa ngi leen di jaajëfal mënumaa tudd ñëpp ndax ku lim juum wala ku lim da nga dul da nga doo juum waaye da nga dul matal ñuy jaajëfal ñëpp encore une fois di leen jaajëfal di leen ñaanal yàlla def ci réew mi jàmm def ko ci bitim réew def ko fépp koo xamante ne yaa ngi ci àdduna bi rek yàlla defal la jàmm di jaajëfal ñëpp di leen wax ne liggéey bi su rafetee yéen la ndax bu ñu koy def te du ngeen ko seetaan defe naa ne du am sens bu ñu koy def ngeen koy bëggee di ko abaissé di wax teg leen fii teggil fii dañ leen ciy sant bu baax a baax di leen ci gërëm di nuyu koñ bii ma ñëw ah di nuyu sa yaay moom ku baax la di nuyu maam Dia kooku sama nit la di nuyu Ami Kébé ah Balla nuyu ñëpp ñëpp maa ngi leen nuyu du ma lim maa ngi nuyu ñëpp di nuyu borom gétt gi commando ah ñëpp maa ngi nuyu ay jéego Ablaye Lay ah ñu ma fekk ñëpp daal maa ngi leen nuyu maa ngay leen nuyu bu baax baax di leen bëggee di nuyu sama caméraman bi nga maa ngi koy nuyu bu baax a baax muy kàbbu maa ngi koy nuyu bu baax a baax kontaan naa ci yow bu baax kontaan naa ci yow de waaw Ousseyn maa la gën a kontaan di la jaajëfal bu baax a baax a baax yow nag vraiment du ma wax ci yow parce wolof daf ne uude lu mu wax ci bëy bu feebar ñu ne der baa tax waaye vraiment ñu ngi lay ñaan yàlla suñu borom kàttanal la dooleel la ba lépp loo xamante ne séntu nga ko ci wasaare yàlla suñu borom defal la ci lu kawe sa njort képp ku fi sa wërsëg nekk yàlla na nga ko jot yàlla na nga ko lekk ci ni nga ko bëggee waaw te ni mu gën a seddee parce que man su ma sañoon àdduna ñëpp am jàmm su ma sañoon ñëpp am xéwal ñu lay jaajëfal bu baax a baax a baax di leen tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo du tàqali ko bu leen fàtte nag di abonné di bës kolos bi di leen abonné si wasaare làmb abonné leen bu baax a baax ñoo ngi ñëwaat yeneen feem